man nag am naa tawfeex ndax bi sëñ xam si wax man man fi teew fekk ma ko ma nga fekk ko diwaan suñ kër a ngi nii suñ kër suñ maam bay moo nekk nii mooy kër gu mag gi waaw borom kër gi boroom kër gii mooy naa ñoom xamuñ ma may ñëw jamono dafa fi fekkul sama kër gi la sama baay batale woon gént la tey ma dégg dañ fi ñëw sëñ Ibrahima Gueye ak sëñ Abdoulaye ak sëñ Moustapha kër la nga ma wax sama waa kër man maa bëgg dimbali ndax lawbe yi ñooñu daa ko togg ñooñu gën a xiir kon ñoom bu ñu bëggee reere man maa bëgg dimbali maanaam fa lañ jógee ànd ñëw nii moo tax lii ma sol xaw a tilim soo ba tey dégg nag ngay wax ci murid yi te ñun li leen dal ak ñu dal man jàngatu xasida la damaa sopp nag di waxtaan suur daal xamit dara dangaa jël mbubu léegi gis ne jox ko bàyyi bu la ture mu mel ni kon li ngay wax ci gaa yi mi ngi ci yow yëkkati ñetti junni laaj fi addiya jox leen ko te ku ne sa baat daw na sa yaram man fi ne nii ñëpp mën a jàng man ko ma ko mën a jàng ku tële jàng ñëpp mën a jàng ndax ku ne sa baat daw sa yaram laa jàng soo maa ngi dégg ngay wax ñii baas bi mel daa waroon a fees daa am bis sëñ bi wax ak sëñ xam sutu ak mbooloo waaye la ma ci la ma ci gën a ñor mooy ñooña ban amee nan waxee sëñ bi ne ko xam sutu wuyu leen suñ xam sut dana sëñ Tuubaa xam naa ma jaar fi jaar rek te daal di ndax soo ba tey maa ngi bëgg a dem waaye da ngaa xam baatu gore may jéem a gore gore la ngir toog waaye bu ma xëyee ba léegi maa ngi ci gan yooyu di sonn waaye nag da wax lu doy waar loo xam ne bu nekkee ne ndax suñ xam sutu xam naa ko lu mat ñaar fukki at te benn laak mos jox loxo te brigé ko waral daaw dama leen di daw ñoom xam naa li ma ci jublu itam ne ko kii jërëjëf bi sëñ mu ne ma jëlal saako beñe bee def ko ci bagaan bi séddale ko mu wóor ma ma barkeewul bi sa tur bi ngir jëmmi sëñ Tuubaa sëñ Muntaxa wax ma fii ci njaareem gàmm ne ma sa tur bi ku ne bëgg na ko nang ma ci yéenewaaleel te yéenewal ci ku bis boobu ma sëñ Xamsatu waxee loolu ma dem sëñ Muntaxa ca la ma xel ma sa tur bi nang ci fasaaleel jullit yëpp ndax xaj nañ ci waaye li ngay wax soo ba tey mu mel ne dalaa ñor xomm yaayay li nga murid yi bu yoboo ñu xam ne ku demul ci géej gi bindoo xasida yi doo sëriñu maam Cheikh Rafal yaa ngi murid yëpp ak garat boo mën a am taalibeb sëñ Tuubaa képp dong nga doo leneen mag la sëñ bi liggéeyloo ba ñëw mu ne fas ngeen ci ñu ne ko waaw sëñ bi ne xam ku ne ko lépp mu ne ko lu waral lépp mu ko xanaa xam ne mbàkke yow yaay jant bi sëñ ne ko xam sutu mu ne ko mbàkke mu ne ko wuyu leen dégg googu kàddu wuy leen sëñ xamsut ne ko ab jaam bu jekkiwaaleeg moroomi jaamam war a wax ak ñoom faw mu ñaan ndimbal mbakki ma bëggoon nga dimbali ma ba ba ma waxee muy dëgg fi yow <laughs> dégg nga loolu kon sëñ Tuubaa ñuy déglu doy na sëñ Tuubaa moom mi ngi ñuy déglu moom ndax euh, mi ngi fi moom faatuwut di sëñ Abdou Lahad mi di jàng xaw ma si yib ba dugg ci béytu euh, ci bayit yooyu sëñ bi wéral la jógu fekk yoo xam li man xëy lasi lay seemoon yu métti yooyu yooyu fii ne lu ñeent jàpp sëñ sëñ sëñ mambay feeñ naan mooy mbar bu bi déw ma fa ndax xam naa ne néwu fa ndax moo ne néwu waaye li ma ciy teew ne ko ma bëggoon nga dimbale ba waxee muy dëgg fi yow kon li ngeen doon def léegi dugg nu xam na ni njàng méttee ban tàmbali léegi rek toppatoo boobu ko jëkkoon jàng man la doon jàng nga xam ne ñëpp a ngi jàng kenn néwu bi waaye lii mooy ab jàngkatu xasida sëñ bay def ne bu la mboolee mépp gërëmee di sëñ Tuubaa gërëmu la amul njariñ bu la mboolee mépp na xarabee te sëñ tubaa nangu doy na sëkk kon boobu xiseb mën naa yem foofu rek loolu laa ci bëggoon ndax ma bëggoon daal mbàkki nga dimbale ma muy dëgg fi yow sëñ bi ne ko umu mu ne ko mbàkke du ma kenn ci ñii ndax yow doo jant jant dafa am lu mu baaxoo muy leeral bu guddee nag day fatu te yow mbàkke foo bëgg def dara boo ko noppee sa yéenee fa des waaye kenn mënu laa wutu fenn daxaa réer ne ko ñaareel ba itam tàmmal nga nu ak fay ba murit bu wat nan bu ma sëñ Tuubaa fayee te si xoog ñun ak fay li war kay mooy man nga sañ nga noo liggéeyloo ba nu dee ci liggéey ba nga woñu ba ñëw nga nal ñun doomi kaani xeeñ ba dese ay dara nga ñun lagg leen ñu lagg dem mas na ne ko sañ na naa la liggéeyloo ba ngeen dem a leen sawara damaa jaamu suñu borom ba mu fayee yambar dëgg mooy bu ma sëñ Tuubaa fayee sëñ Tuubaa doon suñu diggante ñun ñëpp ay nit sawar lan woon ñun ñëpp koo yaakaar ne booluma ci moom laa jiital sëñ Tuubaa ko wax ko aju ci moom rek sëñ Tuubaa nee na boo ajuwul ci man sawara nga jëm ay fay yoon wi berse yoonu ak loo baax baax jàngal junniy xasida te bàyyi sëñ Tuubaa sawara nga jëm ak koo mën a doon nag yi fi newut foofa gëm sëñ Tuubaa képp yombul nag wërsëg la wërsëg nurawut tollawut wërsëg nurawut tollawut samay goro goro di toog rek sooba tey maa ngi toog métti na waaye daa laal ñëpp ñun nan toog ba mu mat rek waaw loolu dañuy goro goro يا مالك الملك